donc ñu def direction Pikine jëlaale ma euh, ki nga ne moom mooy. mas xam ne moom mooy euh, Pikine ah ko waxee. Euh, mm. fële nga xam ne moom mooy parcelle bi en tout cas mun nañ jàpp wala. waaw ah, asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mass yaa ngi en direct sur sur sur Sénégal sur 7 Mass Mboup di chroniqueur ngeen miin ko si kër gi également ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak yi. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax di euh, lu seen liggéey gis nañ ñëw si li ngeen di def ci euh, terrain bi muy lu am solo. Mhm, jërëjëf euh, ñu nemmeeku ne Walf Fadjri ñu ngi wax ne seen licence dañ ko daal di nangu dañ koy dëggal wala ak lan lan moo ko waral. waaw ñun liñ ci mën a wax mooy lii on s'y attendait parce que jàpp naa ne tey jii fii réew mi toll télé yu bëri daw seen responsabilité waroon na génne lu ne su le terrain war a waxtaanee réew mi. ñu nekk di teg ay clip ak yi fi caaxaan te jii nag wal fajiri ñëpp xam nañ ko c'est la voix du li ñu war mooy wane li xew ci terrain bi parce que guerre Ukraine bi ak Russie n'est-ce pas dañ koy wane chaque jour ñu wane ko li xew fële ci Irak ak ak ak Israël mais chaque jour ñu wane ko mais pourquoi li xew suñu réew tey gii ñu def un coup d'état institutionnel tooñ Sénégalais yëpp. daa eh, mais mais mais lii mosul am Sénégal lu doy waar lu toll mel nii. Mhm. léegi nag opposition bi génn woote manifestation. Mhm. muy lu jaadu ci démocratie. Mhm. mais ñu gis ñu coupé signal wal fajiri. ñun bett ñu. parce que xam nañ ne carrément ana yan yan yan justification lañ lañ teg seen loxo. waaw bon xam nga loolu nag man jokkooguma ak kilifa yi ba xam lan la ñu teg suñu loxo. mais sénégalais yëpp man bi ñuy wane image yi. la ma benn nit woon na ma mais ah, yéen kat non est ce que duñu coupé seen signal. Mhm. ma ne ko mais même bu ñu coupé seen signal lu suñu devoir nañ ko def. waaw parce que lii day wane encore encore une fois que le Sénégal dafa tumuranke démocratie. Mhm. il y a pas de démocratie au Sénégal. Mhm. ce qui se passe c'est inadmissible au Sénégal. mon frère xol bu jeex laay waxee xam nga lu tax. parce que tey jii. da ngay xool presse mooy quatrième pouvoir. Mhm, quatrième pouvoir presse dafa am un devoir envers la population. Mhm. mooy wan leen li xew sur terrain mooy wax leen dëgg encore une fois. Mhm. mais tout le temps tey jii lépp lu xew ci Sénégal li ñuy chaîne bi ñuy njëkk a coupé. c'est Walfadjri parce que la ligne éditoriale de Walfadjri dafa am ñu muy déranger. encore une fois. et puis je li may wax ni c'est à l'endroit de toutes les autres télévisions. parce que li leen waroon tey jii. mooy senegal fii mu toll nii ñëpp am njàqare mhm. lii xew ci réew mi ñuy jàpp tey ji ñu ne Mimi ñu ne jàpp nañ ko Anta Babacar Ngom jàpp nañ ko mhm. keneen ak keneen ñu ne jàpp nañ leen mhm. dëkk bi yëngu mais li li mais on a droit et le devoir la population. lan lan mooy responsabilité seen picc si cap ñenn ñuy euh, ñu yor suñuy suñuy suñuy kaaraange également suñuy njiit lan moo war doon seen kàddu si si lu ñu mel. pourquoi pourquoi pourquoi le silence. xam nga xam nga xam nga déjà mënoo wax ci ñoom parce que dégguma leen parce que lii dafa c'est spontané lu am la léegi. Mhm. dañuy xaar seen réaction. Mhm. mais man franchement parler xaaruma ci ñoom dara. Mhm. personnellement waaw. parce que je pense que tey jii même bu ñu coupé Walfadjri Walfa Walfadjri va émettre tey jii ci YouTube bi. les Sénégalais dinañuy émission yi doon am Walfadjri yëpp mais dañuy continuer di am te dañ koy seetaan ci YouTube bi. mais lii day wane ne tey jii. dañoo dañ mais mais dañoo salfaañe ak ak yelleef liberté de la presse amul Sénégal mhm. lii moo lay wone tey jii seen lii ñu bëgg def ñu Sénégal bëgg ñoo teg injustice teg ñu injustice jaay ñu doole def li leen neex repousser ay élection ci lu leen neex tey jii mhm. bëgg ne ba pare museler la presse ba kenn du wax mhm. heureusement que tey yéen a ngi si xam nga tax ma yéen a ngi parce que lii yéen yéen Sénégal set ak yéen a si internet bu nu woon yéen Sénégalais du ñu xam ne xew mais Sénégalais du ñu xam li xew. Mhm. parce que télé dañu daw seen responsabilité. Mhm. Walf nag a pris la responsabilité d' assumer tey jii son ligne éditoriale sa ligne éditoriale taxaw wan askan wi li xew sur le terrain tey ñu ko signal Walfadjri mhm. mais ndokk de toute façon lii am lii xew Sénégal mësul am Sénégal depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade si nguuru Macky Sall la amee tey jii li def mooy un coup d' état Euh, Mass par rapport ak euh, la géopolitique ma bëggoon loolu amal benn laaj rek balaa ñu lay bàyyi nga dem mooy euh, gis nañ Embalo génne di féliciter le président de la République CEDEAO également mel ni mbiri dafa mel ni daf ko daal neex tey ak la tension bi am si Sahel bi Burkina Faso Mali Niger booloo seen doole doon benn le Sénégal seul avec yeneen dëkk yi nga xam ne moom la jàpp ne président de la République ñoom ñoom la ñoom la amal accord donc quels sont les risques wala les conséquences en matière de diplomatie wala en matière de développement il n'y a pas de conséquences parce que ñëpp xam nañ ne la CEDEAO c'est des traîtres la CEDEAO c'est des traîtres musuñu jël benn décision favorable au peuple africain ça n'a jamais été nous la CEDEAO tey ji euh, ñëpp xam nañ ne en euh, fait c'est la France euh, qui est derrière la CEDEAO décision yi ñuy jël yëpp tey jii mais décision yi arrangé France la France moo ne ci ginnaaw d'activer encore une fois les peuples africains ne doivent pas rien rien attendre de la CEDEAO parce que la CEDEAO c'est des traîtres ils sont derrière la France kon tey jii yaakaar naa ne loolu amul lenn loo xamante ne mën na ko yàq ci ci ci ci ci ci ci diplomatie parce que tey jii CEDEAO CEDEAO bi ngay wax tey jii amatuñu amatuñu amatuñu baat ci Afrique amatuñu baat ci Afrique muy Mali muy Burkina muy euh, Niger muy Tchad euh, euh, ba Sénégal gi amatuñ fi baat amatuñ fi kàddu donc li xew nag ñëpp xam nañ ne Sénégalais yi ñoo bëgg changement Sénégalais yi ñoo ne lii foo mu dakk parce que aussi mënuñu ñun ñëpp toog di seetaan lii mhm. ba kañ ñuy seetaan cette injustice la mhm. ba kañ ñuy toog di seetaan forfaiture yi mhm. ba kañ ñuy seetaan tey jii xoolal tey bu ñu repoussé élection yi mais suñu suñu rakk yi suñu mag yi nekkoon ci biir kaso bi yaakaaroon ci élection yi pour mën a génn ñoom fan lañ jëm. gis nañ dem également seeni collectif la famille de politique génn di ñaawlu lu ni mel. waa mais moo mais mais mais mais c'est c'est c'est Euh, euh, information bi génn mooy émeute xaw na am foofu. Mhm. tey mhm. euh, mu nekkoon Mass Mass Mass Mboup donc lan Euh, mu mel ni euh, di ko di ko jéggalu nag bu baax parce que mu mel ni téléphone bu ñu ko woowee moom moo moom moo vide. Mhm. leeral na lu bëri si si si li nga xam ne moom. effectivement euh, en tout cas moom am nañu réaction en temps réel. bu ñu xoolee gis nga zone bi actuellement ba ba ngay dugg moo xam parcelle moo xam Pikine. Euh, fu mu toll nii fu nit jaar sax euh, problème la euh, donc en tout mën nañ jàpp ni rek mbir yi dafa commencé di wàcc ci côté banlieue bi jëm fi nga xam ne moom mooy Pikine Guédiawaye jëm fi nga xamante ne nii moom mooy parcelle en tout cas mën nañ jàpp ne rek euh, xale yi ñii dañoo xëyoon ñii gontu fu mu toll nii mbir maa ngi jaxe fu nekk alors dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne Mass ko yëkkati na ko jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy Walf et puis gis nañ ni ki démb xaw ma barki démb bu yàggul dara la fa suñu confrère bi ba rejoindre li nga xam ne moom mooy équipe bi sànq dégg nañ ko muy alerter même pas deux heures de temps wala une heure de temps ñu retirer li nga xam ne moom mooy licence su Walf tey ñu bëri di ko di ko naqarlu parce que naqarlu lañ ci am mais tey lan nga jàpp lan lañ war a jàpp ne tey moom moo war a tax mbir yi daal di mën a féete côté parce que tey ñu ngi ci 2024 et on revit les mêmes choses et c'est malheureux c'est malheureux parce que fu mu toll nii tey foo foo voilà gis nga voilà donc dañuy continuer rek ñu dem pikin sûrement fii yoon bi walla ba pare dañuy taal dañuy taal mbedd bi donc du pour nga jàll oto yi sax ak ni ñuy jaaree tàq-tàq bi erreur la Matar est-ce que duñu jéem a wàcc aussi pour pour pour xool voilà ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne euh, yéen a ngi topp live bi depuis sànq ba tey donc di leen jaajëfal bu baax a baax en tout cas euh, gis ngeen li nga xamante ne ni euh, moom moo xew fii gars yi ñu ngi wax ne même manifestant yi actuellement ni fas yéene wuñu bàyyi benn yoon ñu ngi continuer jëm ci li nga xamante ne ni moom mooy mbir yi en tout cas Euh, euh, euh, gis nañu document bi nga xamante ne ni génn na Matar mm. alors jot nañu benn document boo xamante ne ni fu mu toll nii ñu ngi koy soog a jot muy euh, waa CAP. dafa mel ni réagir nañ très rapidement donc yaa ngi ko doon wax léegi donc ñu ñëw ci communiqué bi ñoom ne nañ la coordination des associations de presse euh, s'inquiète de la situation actuelle et de avec la coupure du signal de Walfadjiri ah, euh, nous dénonce dénonçons avec énergie d'énergie Voilà, par la même occasion, l'émission dangereuse et liberticide du ministère en charge de la communication euh, dans les programmes de la télévision Walfadjiri, un ministère de tutelle euh, de surcroît un avocat qui ne respecte pas les voies légales pour couper le signal. Euh, la CAP dénonce également l'interpellation des professionnels de médias qui étaient sur le terrain pour la couverture médiatique d'une activité politique. Des femmes journalistes ont été brutalisées, arrêtées et humiliées par des éléments de la gendarmerie par des éléments de la gendarmerie donc euh, euh, mu nekk mbir moo xamante ni ah nee na fi mu koy jeexalee nag moom mooy nous évitons les reporters euh, sur le terrain à plus de prudence pour cette période relative complexe donc dafa mel ni CAP joxe nañ li nga xamante ne ni moom mooy seen xalaat ak li nga xamante ni moom mooy seen réaction voilà donc bu bu bu a Mamadou mënee euh, contourner rek voilà na def nii na def nii. lan yaa ngi gis en direct nii yéen a gis côté Yoff bi noonu yéen a ngi gis Papa waaw da ngay gis rek mais da nga koy bàyyi gaay yi da nga koy bàyyi gaay yi ñu dem Pikine bàyyi ko gaay yi ñu dem Pikine fële si kaw Modou Modou ñu avancé nii droite waaw euh, ñu avancé Yoff ah, waaw. Euh, hmm. mais ñun dañuy continuer dem Pikine waaw dugal rek donc ñu continuer rek ci temps bi wan leen lépp li nga xam ne moo fi xew donc yéen a ngi gis également image yi mu leen mujj a wan léegi léegi léegi léegi léegi ginnaaw euh, policiers yi nga xam ñu ngi dàqanteeg euh, manifestants yi donc euh, mu composé des jeunes des jeunes sénégalais âgés ñenn ñi si 18 ans jàpp âge moyenne bi 30 ans gis nañ également ay maire yu yu yu suñu moromu yaay yi nga xam ne génn nañ également di wax lu leen métti rawatina les familles des détenus politiques wala ñenn ñi nga xam ne nee nañ ñoom dañu see dañoo ñàkkoon seen i seen i seen i njaboot wala ñàkk ñi leen jege si li nga xam ne moom mooy échauffourée yi fi amoon donc ñun tout droit la ñuy def ñun dañuy jëlaat tout droit affaire yi pikin parce que euh, à Pikine ñu ñu signalé que y avait une géria parce que Pikine doon na zone bi nga xam ne euh, si taarixu wàllu politique euh, suy ay manifestation di am ñoom bokk na si ñi nga xam ne ñooy ñooy njëkk génn si li nga xam ne moom mooy moom mooy réew mi ñu nekkee ci côté banlieue également li fay xew euh, Sénégal war nañ ko xam parce que c'est pas également seulement ville bi la war a daal di couvrir moo tax ñu nar a dem fi nga xam ne mooy banlieue pour moom euh, la koy wax sànq ci jéem jot euh, ki nga xam ne moom mooy suñu frère aussi Ayouba donc suñu ko. jotoon waroo woon sànni vinaigre bi nag donc bu ñu ko jotoon moom aussi dinañ mën a jël réaction am en tout cas ñu ngi continuer fi ah! donc euh, lacrymogène muy muy commencé xeeñ donc dañuy dem rek papa nee ba foofu noonu gis euh, lu fa ne ñu taxaw def débriefing ak sénégalais parce que tàq-tàq yi fële si si si côté VDN bi la euh, di wax également chauffeur bi suñu mun a dimbali yëgal ñu si kaw ci kaw pont bi ñu mën a am exclusif l'information yi nga xam ne moom moom moom soo si manifestation yi nga nga jëm donc dañuy jël côté bële non waaw na taxaw ni dem style bi rek donc yéen a ngi gis lu ni mel euh, ndaw ñi nga xam ne après da ngay mën a am ndaw ñi jàkkaarloog policier yi ñu won leen lépp li nga xam ne moom moo fi tukkee si wàllu information à droite à droite taxaw na le dem côté gauche ñu mën a euh, donc dañuy wàcc rek wan leen li nga xam ne moo information bi donc. Euh, depuis sànq ñu ngi leen ko doon wax mu mel ni baare nañ ko. donc euh, yéen a ngi euh, yéen a ngi gis li nga xam ne donc euh, ñu continuer ak yéen yéen a ngi gis li nga xam ne moom mooy ndaw ñi fële également ñi nga xam ne moom mooy la police nationale déployé une équipe papa da ngay ñëw nii taxaw nii am dañu mën a am nii naa si am lépp donc donc Modou également nga bañ ñoo sori ñi ngi fii nga xam ne moom mooy Brèche Dorée bi nga xam ne moo nekk rond bi lala après rond point 26 yaa ngi ndaw ñi ñu ngi ah, ndaw ñi ñu ngi gën commencé baare saxaar yi ñu taal fële waaw xam nga sànq maa ngi koy wax maa ngi naan la fi mu toll nii mbir mi dafa nar a gën a dégénéré gis nga boo xoolee ci kaw fële yaa ngi seen manifestant yi niñ defee juu nga sànni sa beneen côté bi c'est la même chose côté 26 bi parcelle bi c'est la même chose euh, euh, euh, fële nga xam ne moom mooy yor c'est la même chose te gis nañu gars yi fii boo xoolee tolloogu amaguñu nombre bu bëri par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kii yi nu mu tuddati ci takk der yi en tout cas mën nañ ni fu mu toll nii manifestant yi ñu ngi gën a avancé jëm si donc waa ji dafa mel ni ci tiré lacrymogène la jëm donc c'est un voilà donc c'est un convoi derrière également nous am nañ ay ay ay euh, yu ñu taal. Mhm. à droite de nous également am na ay yu ñu taal. Euh, si côté gauche bi gis ngeen côté Yoff bi ndaw ñu ngi génn donc euh, yéen a ngi gis foule bi nga xam ne ñu ngi ñu ngi baare fële ci kanam nag lañ taxaw laal ah, pour pour pour pour mun a jàkkaarloog ñi nga xam ne moom mooy moom mooy takk der yi. Ah donc di wax ne Sénégal jàmm lañ ci bëgg si si réew mi. donc yéen a ngi gis ñu ànd ànd continuer ak yéen Sénégal 7 mu am kuy woote papa damay sumal émergence bi moom muy woo gars yi pour ñu ñëw jege si pour ñu mën a euh, faire face ak ñi nga xam ne moom mooy les forces de l'ordre et de sécurité waaye di wax ne euh, li nga xam ne moom la ñuy gis si réew mi euh, xibaar bi ñu jot ki nga xam ne moom mooy ministre bi nga xam ne moom mooy la le l'intérieur ginnaaw ba mu jugee Touba yéen la la war a wax jëlal mu ngi sànni lacrymogène oh yaya ça fait mais également di leen jaajëfal nag ñoom force de l'ordre parce que ñun ñoom ñoo bokk rek voilà dégg ngeen ko. Hmm, ça fait mal ça fait mal ndaw ñaa